sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin am na solo bu baax asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ñu ngi leen di nuyu lu bari amaan mbégte del si waat comme ni ñu baaxoo di ko defee ak yéen samedi bu jot ci waxtu wi yéen a gën a xam bi la show di waagaan show muy programme bi nga xamante ne ñëpp a koy xaar fépp ci àddina wërngal këpp mënuñu dem mukk nag te fàtte ñi nga xamante ne ñooy sunu yaay sunu papa yi sunu yumpaañ yi suñu ni yaay delloo njukkal lu bari ñu ñu féetee mag ak ñu féetee ndaw waaye duñu fàtte njiitu réew mi président Adama Barrow ak képp ku ne ci ginnaam di ko jàppale waaye duñu fàtte ay soxnaam ñu ngi leen di ziyaare bu bare bare bari di nuyu njiitu kër gi Alhaaji Mohamed Dia duñu fàtte madame Dia moom it di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko taxu fiix bu yaatoo yaatoo yaatoo bu loolu weesoo dañuy daal di nuyu gërëm ñi nga xamante ne ñooy suñu caméraman ñu jàkkaarloo tey nag yus laa jàkkaarloo Touré man ni moo di sama xarit ah teg si koor ba sama doom ñi nga xam ne ndeysaan dafa teggi ndawal nuyu ki nga xamante ne moom moo nekk control room laa mi nang a xam ne ñoo nekk programmes waaye nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk editing room di bégee ñëpp di am mbégte ci ñoom saa ne waaye nag di nuyu groupe waagaan euh, show Mohamed moom laa jàkkaar lool eh, salaam sama doom ji séeri yaay Fall ah nuyu waat bu baax ko de awa baba pula eh, a am buru wi tuuti ah la tey tey la tey tey <laughs> Eh, tey la tey ah, salaam salaam salaam laa gis. man de waxuma loolu de dama ndax salaam ma wala Abdou salaam. waaye tey salaam ma ñëw salaam sama doom bi waxu dara Serigne Yaay Fall mu naaw. ah waaw mbaa jàmm tamit tamit. ah nee na nabaate nabaate. ma nuyu Mamadou Lewru bu baax a baax di nuyu Fosle di Fatoumata Baax moom ndeysaan day bëgg di bokk si suñuy programme waaye jamono yi dafa nekk si ay xar-xar ñu koy nuyu bu baax a baax nuyu jëkkëram nuyu goroom télé wax ne gisoo ñu gisuñu la waaye suñu xel mi ngi ci yow saa yu ne ña nga baa yaa ngi am jàmm ñu jàmm baax ñang tey nii nga ma may waa tey lii laa la may tey dama ko simplal ah, delluwaat nag xam nga rek ci ah, la ma caam création def waaw xam nga caam création fi mu génn baax na trop non caamee jaay piis bi caamee ba pare tëj na ko ba pare dunqi ginaar yee ma ci gën a sax yow dunq jeex marché ba pare nag nga jël koppati bu garaaw teg tey queen nga waaw waaw tey buur nga eh, wandeelul wandeelul da ngaa war a wandeelu da ngaa war a wandeelu xam nga boo wëndeeloo wëndeelu am na wëndeelu ba miir am na wëndeelu boo xam ne mooy wëndeelu boo xam ne dangay xam li xew ah. bii na wëndeelu xam li xew la léegi mais ah, bi wëndeelu xam li xew pour ñu xam ne ñëw bi nii la xam nga kay waaw ñu xam ne xew nii laa leen di def dem ba nee wu ñëw ndànk defaat nii voilà voilà ñëw toog bi mu wëndeelu xam lu xew sa geenu sa geenu sa geenu fas baax na. waaw waaw nuyu naa la. fay naa la maa ngi lay ziar di nuyu réew mi yëpp. di nuyu sama waa kër di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi may seetaan di la ñaanal jàmm ak salaam di nuyu képp ku bokk ak man deret képp ku bokk ak man xeet képp ku bokk ak man meen ak képp ku bokk man diina ak képp ku bokk ak man réew mi ak képp ku bokk ak man Afrique ak ki bokk ak man àdduna maa ngi leen a siyaat di leen bëgge di kontaan ci ñoom waaw fay naa sab nuyoo mhm. di nangu sab siyaar mhm. di la wàccee sab wàccuwaay maa la wax loolu waaw di la ñaanal tawfiix ah, yokk ba yëg ko amiin waay la ñaanal gudd ak fan wér gu yaram amiin mucc ak le raw ak raw le ci la rek si dina ma sala dafa am nag tey programme bi ku ma bëgg ñu may ko mooy kan mooy koo xam ne joob euh, euh, la sant Alaaji Jóob moom mooy protocole naka moom dafa bokk ci eh, bu baro di génn. Mm. ñi ànd ànd ak baro ci ci ci ci cortège bi. Mm-hmm. moom mooy jiitu baro topp ci. Mm-hmm. ku baax la police la. Alaaji Diop mm-hmm. maa ngi koy ndokkeel di ko ñaanal jàmm ba salaam bu baax a baax moom laa may programme bi tey. <laughs> yaa ngi dégg loolu am na solo damay doxal tey ka ma njëkk a dem seeti mooy Moussa Bathily. Moussa Bathily men Moussa Bathily Moussa Yéli Bathily waaw moom laa dem seeti déglu ay kàddoom moom lan la wax na Moussa Bathily àll la waxee dafa mer mm-hmm. bu ñu ci jógee mm-hmm. dinaa dem seeti ki nga xamante ne moom mooy maire bës mm, ba dem ba damay teg maire bës maire bës du ma ko sax indi tey xam nga ku may seeti ah. Antin Ndeye laay seeti ca Talinik mm-hmm. Antin Ndeye dafa wax ci school bii di waaj a tëj lu ama ama ama am solo mm. bëgg naa kuy yaay na xëcc doomam teg ko ci diggi saalam mu ci ay tànkam jàkkaarloog télé mu mm. déglu li Anta di wax mm. njëriñu kese la mm. bu ma jógee ci Anta Ndeye damay dem ak short break ginnaaw short break ma dellu si bu ma dellu see ñëw indi leen maire bës mhm. maire bës moom moom itamit wax waxoon naa ne mu ngi waaye bàyyi ma sarax ko indi sarax ko waaw buñ ci jógee ma indi leen Adama Barrow mhm. loolu mooy tey lii jaar programme am na ci solo ñang fi nga génn baax na di kontaan ci ñëpp di leen ñaanal jàmm salaam bu baax a baax mbaa xam nga ni sëñ Mansour Touré ca Daaru koy ndokkeel xale la waaye ku baax la ñu ngi koy ndokkeel Kebe borom Kebe Kunda textile lépp loo dund rek man xeeb naa ah waaw <laughs> ma ne ma ne ma xariñ ak imaam daf ñuy yóbbu Màkka man nga xam ne moom si jaar <laughs> programme bi de man ni ma waagaat yow yaa wax ne dama leen di yóbbu Màkk leen de xamal naa la ko xadi moom noo mën a def na nga ko jox tiketam <laughs> ma ko waxee fii la àndajee moom ci ma ne ko waaye imaam mu ma bul àggali <laughs> fu mu dugg topp ko su tiket moo ko yor soo demul màkk nag moo la moo la ko xaj mu ne ko ñu ko ñaanal jàmm ak salaam bu baax a Bella Ousmane Dia ndeysaan di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm kon dañuy dem rek seeti Mamadou Bathily mhm, yàlla Bathily ayca yàlla Bathily ma ngay yi jiin bu yeewoo samar yi jiin walleen ma Bathily Bathily jagat Bathily ay waay Bathily jagat waay woon leen bàcc woon leen bàcc woon leen bàcc woon leen bàcc woon leen bàcc woon leen bàcc woon leen bàcc ministre la waay ministre la waay el bàcc li ñëw el bàcc li ñëw el bàcc li ñëw el bàcc Yes, yes, thank you, thank you, thank you very much. Thank you, I'm always happy like this, yes. Because people like me, I'm always happy. I'm always happy, yes, yes. Nobody will stress me, myself, yes. Because someone wants to stress me. Dumaguanango, boy. Yes. No, no, no. I don't want to stress myself. I know. Hey, it's Gambia. Yeah, I'm a Gambian like everybody. Yeah. What is the problem? Gawa stress, gawa there. Thank you very much. Mm -hmm. But do gawa there. Because yeah. I know myself. Yeah, I am jam. Before anything, I know myself first. Mm. Yes, don't say that again. Yeah, I am jam. Because I know myself. Manu Nobody will stress me. De dama ne ndax mbaa yaa ngi am jàmm. Yes, I'm cool. Wow, dama lay. No, don't, hey, hey, hey. don't say that again, eh? don't say that again. mu ne bul wax baro fii. don't say that again. what is the problem. Bacili Bacili yaa ngi bëgg a mer de lan la la baro def. no the problem is. waaw taxawoon. people xam nga xam nga bëgguma wax. déedéet da nga war a wax waxal. lu la baro def because lan mooy problème. Hmm. man Gambia la. Hmm. dama liggéey lu nekk pour réew mi. dëgg la pour ñu ñëpp ñu gis réew mi am na am na jàmm. Hmm. because time boobu man time maa ñëw Gambia man dama am xaalis. ma ngi am everything. Mhm. ma ñëw ma xam ne Gambia dafa am fu mu war a jógee. am fu mu war a dem. because ñun suñu doom yi fii la nekka. Mhm. suñu seeti fii la nekka. Mhm. suñu gisee seetaat fii la nekka ñun Gambia la yaakaar. ma jógee fu nekka Amerika ma ñëw fii ma jël suma xaalis one million dollars yi. taxawal suma parti. Hmm? tàccu leen loolu. Yo, eh, yes. to the Barolawa. Yes. yes. Barolasaf. You know the problem is this boy, the out. Please, eh, out. I ah, cannot compromise, compromise that. Out! I say that out. I will fight you. All right. So, léegi am na ñoo xam ne foog ñu wane seen bopp. waaw nga jël one million taxawal sa parti. dollars yi. ma taxawal suma parti. Mm-hmm. how can I invest one million dollars is to have my own party am suma mm-hmm. election ñëw ku nekk di wax ma look dafa nanka because Barrow am naa yaakaar si moom. Barrow am naa yaakaar su fekkee ne daf dañ ko delloo place bi. Gambia dina dem kanam. because man Bacile xam naa lu baax xam naa lu bon. I was in America. I know how to manage. the government. you know something about government. you know. maa ngi xalaat su fekkee jàppale naa ko ministre. I know mu def ma ministre. ah yow loolu nga bëggoon bëggoon naa ko. Ah, yow yaa ngi door a wax wax ji. loolu wax naa ko ndànk laa ko. waaw at least mu def ma ministre. Mhm. man poste bu nekk bëgg naa ko. gis nga tey waaye moom mënul la fexe fexe. maa la asoyal ne waagaan soo programme bi su jeexee. baro immediately daf la léegi fu man naka laay def fii ba next five years du ma nekk dara. di la ñu lañ ma seetaanee rek di la bàccali bul gaaw a mer baaxul ak gaaw a gedda yu gëmal li nga gëm jàppal li nga jàpp. maa ne du ma ko def damaa wa bu baax bàyyi naa baro bàyyi naa parti bi. yow yow ana ndànk man li may wax yow ci suuf loo ko ekkatee ci kaw. doole na su fekkee dama bëgg a dem ministre kool na ma. tabaski bi passé sax naa dégg naa la yaa kool nañu bari Bathily dégg naa la Cilis bi. kool na eh ah, ba dégg naa bara koolu naa la Cilis mu ne mu naa kool. kool na kool na looy ànd ak Ousseynou Dabo suma papa. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar yi jiin. waaw moom mu téye rek bañ a bàyyi. moom a jaaxal de mun naa am sax yëgu ko xam nga la ñuy wax ay dag yaay mun naa am fa jaar. moo doon buntu ba foogoo. ah waaye nag yàlla bàcc li moom bu waree bu bu buy jaar naa jaar ci buntu ndax eh, wax dëgg nag moom lim ni mu ko waxee amoon na parti nee na moom one million dalasi la fay pour taxawal parti. ndeysaan léegi nag jël parti boobu seeyal ko ci ci parti his excellence président Adama Barrow jàppale ko si élection yi ba mu jeex gis ko toog ak moom sax mënu ko kon moom doy na bëggatu koo gis te léegi génn na sax. ci affaire bi ah, bëgg naa ne waagaan. Eh, waxi mer la rek ñëw. waxtaan ak yow because ñun. ñun suñ fa ñëwee lépp day ma dañ dañ koy dañ waaw incha allah dinañ am na solo <laughs> kon ba ci lii ñu ngi lay ñaana yàlla may la xol bu wàcc no non no non lay euh, desaan baro bu seetaane li da lay kool immediately maa la ko wax parce que xam nga xam ne soo day jàllale mm. message maa la ko wax waagaan day leeral lu nëbb woon mm-hmm. waagaan soo day laal yax ba la ñu doon nëbb te mm-hmm. xam naa baro xamee wut ko nii dëgg la lii buy jeex immediately mu woo la dina la ba pare sax euh, maa ngee nuyu bu baax Moussa Ba ci protocole maa ngi koy nuyu. di ko ñaan a jàmm ku baax a ngi noonu. Mm-hmm. ku baax te woyof Moussa Ba ku baax la xam nga ne kooku lu mu yëg mhm. a ah, dina ci dox lim ci war a dox ah, ak ñi ko wër yëpp kontaan nañ ci ñoom am na solo honorable Lamad Ba ba mu eh, la suñu papa waaw wallaay ndeysaan bu gi ci nag am yi mhm. xar mhm. Ah, am meew am soow maa la nuyu bopp la wallaay ndeysaan di leen suñu yaay di leen ñaanal jàmm ak salaam baax a baax a baax sunu mooy suñu papa honorable Amad Ba yàlla defal ko jàmm ministre of tourism and culture ñaanal ko jàmm ak salaam bu baax a baax di nuyu nag waa arts and culture. Mm-hmm. ku ci mel ni Omar Omar ah, Omar. waa Xaasum Cissé ak Xaasum Cissé. waaw waaw ñu ngi leen naan nuyu baax di leen ziar ak suñu chéri koko. ak Hamadi. ak Hamadi waaw suñu chéri koko. waaw. Jabari Alaaji Manka. waaw kooku ah, kenn mati ami Diop mati mati mati mati sunu xarit bi ñu ngi daan ndokkeel. di la ñaanal jàmm ak salaam. loolu am na solo kon lu ñu def rek mooy dañu dem seeti anti Ndeye Guèye. Eh. dem déglu ju ay kàddoom. borom talenting loo waxati borom talenting. ay waxal loo waxati borom talenting. eh mooy borom talenting. ana anti Ndeye borom talenting. sin ma ngay dama ne tàccu na neex na diig na rombax na toltali na waras wallu ba ànd ak i kama fajar kenn duñu tere ku ci tàccu sa loxo du miti ku ci sar xolle doo dee way na anti way ko kum sagu na kooku doj wunu xorom doo salli doo seey doo dëndatu yaay sunu xarit ante yaay sunu xarit su ma jëndee ginaar jox la pooj ba yaay sama xarit salaamaaleykum fii maa gis ko ndeysaan kër kër kër kër kër kër kër kër kër ndeysaan ki yow la àndal bi neex de moom lu bari lifin di yëngatu salaamaaleykum na nga def Hadi ma defuloo dara Hadi ma naa la. maa yaa ci jàmm yaa ana supa bi. ma ne dama dee nuuroo mère boos dama ñëw añ si supa kaay dama la bëgg a laajte dama di nuuroo mère boos. yow la tuddee ma de génn si wéda yi xale ma mère boos. non da nga am bës. ah waaw kay noonu laa bëgg a dégg loolu laa bëgg a dégg. na mbaa eh, dama ko koy feccee de yaa ngi dem te ñëw. bu dee see ngeen fee te na eh ati eh, de kii dama ko bëgg. kii fàtte wu fecca de fecca fecca fàtte wu noo ko. hadi ñëw deɛ deɛ de boma tan ya ha de de boma tan ya suma suma diga bi ban ho. wala ti nama na yala. ma lara na de. yɛn salam jigéen ji taxaw. ma yɛn ki jama dega la. yi ma duggee yi mu ngi ba. day ko si o kër du ma togg añ. dega ko togga waaye moo ko lekka. bu ko neexoon ne du ma ko lekka. Ah. togga rek si ne kan. dafa ba hali ba dama fompa suma lunette yi. si télévision lañ nekk. waaw fompal bu baax. jox ko yow alal ma. si télévision lañ nekk xadi. suma lunette yi dafa xalal li dem. si télévision lañ nekk yaa mbete téyel ma ko. waaw. papa laay. Ah. kaay télé bi dikka la. waaw continuer dafa bëgg salaam gis nga kii taxaw. dëgg la damay buub suma néeg ba yóbbu ko këram. waaw ñu gën a fa weer. dëgg la mu joxe ndekki añ ak la waaw di baax na. Ah. moo ma bëgg ba jeex. dama bañ nit ñi di ma xool foog nga suma boti yi. kii moo a jël def ma doom. ba jël doomam ji bàyyi ma xaar ma si biti xaar ma si maa ngi ñëw. xale yu yi nii lañ ma dee def yow Hadi su ma waxtaanee ñu ñëw di ma interrompre dégg nga la waaye dama leen wax ne maa ngi a jox si ataaya ngeen naan lu dafa jar moo ma fekk si cabinet may waxtaan xaaral suma télévision maa ngi si saal bi xaaral waaw déedéet téléphone bi ah. wóorut wóorut neexut Hadi jamono neexut ah ah ni ma def nii baax na Hadi ni ma sonoo baax baag bi dama doon génn Hadi dama dama doon génn waaye yàlla dogal ma ne xaaral balaa ngaa ñëw ma am nu man def. na nga def ni du daan. maa ngi mag na dafa war a diis. Eh. waaw. Hadi. Eh. ni ma def baax na man de suma daal fa na dafa am a poussière xaaral ma fomba ko balaa télévision bi di ñëw xam nga am na yoo xam ne dooko ko dee nangu xam nga Hadi télé la. Mm. ana yàmbeti dafa génn waxoon naa ko mu xaan la dafa dëgër boppam. ɓeti eh, dafa degar pompa torop ana bayba mu ngi kool bayba bu kool na demba ah. waaw ba mooy kool no déedéet ah, kuy kool dama am gan hadi télé bi su ñëwee du ma am jaama ah. ndax koo xam ne soo taxawee waxee adduna yëpp te soo waxee ñu dégg la nan ko war a fonka mm-hmm. laala aspiré xaaral ana aspiré may leen ma ngir yàlla waaw hadi laalal moo gën hadi télé na télé télé yombut hadi télé la télé moom boo cee na danga nga war a deferu waaw because xam nga am na ñoo xam ne ni nga solo rek la ñoo seetaan waaw xam nga anti yow xale ci la ñu jàngee eeg déedéet ku jàng eeg si man ma doo la ba nga dee man du ma eegu kaay benn xale du ma eegu kaay benn xale man kenn bu may yab dégg ngeen li ma leen a wax li ma leen a wax pour seen njëriñ la waaye du pour man xam nga lu tax ma wax la loolu too soo déggee man xale ci yow la ñoo jàngee ne da nga nekk teacher nekk si school boo xamee yow lépp loo wax rek jëriñ la téere la. dégg nga la suma maam daf ma daan wax ne. xam nga guy gu daan gaa ngi xale si yow la ñoo jàng ah boobu la wax nga a wax <laughs> ah, soo gisee ma wax la loolu mooy saa yoo waxee dara dégg mu dugg ci noppi xale yi rek ñu bàyyi si dégg la dégg yow sa njàngale mhm. du doon luy far xam nga da nga bind si blackboard bi nga fomp ko mu dem da nga baax rek waaye yow loo jàngale du dem dégg la baax rek nag li ma bëgg a tey nga wax ma mooy ñu ngi waaj a tëj school lan nga am pour wax xale yi. jërëjëf Hadi. Mhm. kontaan naa si yow. waaw yow su ma la gisee suma xol bi daf ne sedda danga ma jàppane te yàlla tax. dëgg la kii mooy suma doom Gambia suma doom a ngi nii. bilaay suma yaay la. aw ma doon suma doom a ngi nii man maa ko bëggal suma boppa. maa ngi wax ne réew mi nañ ko ñaanal yàlla may guddal fanam. amiin amiin yaa rabbi amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin ñi tukki ak ñi fi nekk yëpp maa ngi na a nuyu suma doomi yi maa ngi leen a mm-hmm, nuyu mm-hmm. suma doomi ndey suma rakk yi maa ngi leen a nuyu suma mag yi loolu laa fi am bokka lañ fi am mm-hmm. di nuyu nag suma xarit bi dëgg la bàyyi bàyyi baabu bi waaw waaw papa laay moom la am de papa laay ante ndey dama bëggoon foo ma ñëw bi si Moussa Bathily laa jógee waaye dama eggare ma ne su ma ne fii di sumee ko ko ko bi dina yàgg noonu laa rombee rek dégg la xadi jërëjëf ma bëggoon nag ngeen wax xam ne school tëj na waaye bu ta tax ngeen saxi laaf di naaw waaw waaw dem leen ngeen study ji su much studying su ngeen studying. Mm. su school ubbee ngeen am results yu ma. waaw wax dëgg waaye nag ngeen school te ngeen nekk di dem beach di taxawaanu bugguma ko. man bugguma xale yu vulgaire man bugguma yooyu. Ah, xale xale yu dëgër boppa mm-hmm. xale yoo xam ne loo leen wax duñ ko duñ ko def. big bi mm. fekke wut kenn ñoo ko def. fekke waaw te soo fa gis xale yi ni ñoo defee. waaw sa yaram dafa daw xale yi di def ci yaram yi dem am. ah di dem si big bi ñu ne dañ tañ school bu ko defee ñu def lu leen ne man loolu neexuma xadi te xale yi tey ñoo nekk magi ëllëg ñun suñu yaay yarewuñ ñu woon nii suñu yaay yi dañu doon saama fuñ dem fuñ dugga ñu xool ñu xam lu ñoo defar lu ñu def ñetti bés a ngi nii waaye di leen bàyyi ñu booyee leen comme ay béy man bëgguma loolu Sunday bi back to school uhuh. back to koor uhuh. a ah, a bàyyi xel da nga war a dugga dem def loo xam ne nga ne da ngaa tëj weeru ko bañ ne ëllëg la ñoo um mm. nga dem bic def lu la saf xëy um koor xam nga loolu ah? rafetut rafetut nañ ci bàyyi xel man yaay laa comme yaay yëpp mm-hmm. waaye dama bëgga képp koo xam ne commence ko amee naa la waaw koo ci am naa sa am naa sa noma téléphone yi yaay waaw waaw dinaa ko boole ak sa yaay naa def si biij bi nag di xool xale ma fa mu nekk suma school dootoo fa dugga ah kay def ko jar dinaa fa dem maa si salaam nga ñëw jël tubee teg ko fii tuddee ko nan check down xaw ma uh, down down yuutal nga naan wala ah? yuutal waaw waaw xale góor yi yuutal te koo ci gis lam jiital boo ko xoojoon mu cee togga maafe ndax foro ba pare nga ne da nga am boos nag nga ne nga ne nga topp xale yi di leen na ah loolu xam nga rafetut man nag suma wax du si bari xale bu si dëgër bopp soo ñëwee si school mën nga faa fekka euh. ma di fàtte ko yombe ah kay daf ko jar xadi sa yaay mer nga ñëw fekka ma tane ni foofu laa dëkka wala sa papa merci nga fekka ma fa man xale yi dañ ma den teg suma loxo dama leen naa sama dinaa dem si bi ba gis xale bu fa dëkka suma school be ñëw fa suma la dooree bi sa dinga jërëjëf man bëgguma façon yooyu loolu neex ma waaye anti sa sa dagit la. waa tay na xam nga rek dama ko oyofal. nii nga defoon bési lakk bi bési tabaski bi waaye bii la woon bési lakk bi nii laa defoon. suma waxu si lakk bi doo am. jaamu du ma kontaan man teew laay jàngee dama bëgg nga waxal ma ndax man tam su ma duggee si ne gisee ma xam laay def. xaddi ah. dama rus. Mm. dama doon lakk mu mu xóom. moo tax bëgguma si woon a wax. ay anti wàññi ko sin ma nelaw bu yewoo xalam yi bu yewoo samar yi jiin kooku anti nday la ndeysaan wax na dëgg nag xam nga moom bu génnee rek ci yi lay wax mhm. ndax anti nday eh, bu leen fàtte ne la jàngalekat bu mu wallaahi moo tax tey ndaanaan la ci school mhm. ndaanaan la mhm. la cim réew ay waxam bu ñu koy fooyee. Mm-hmm. lépp lu mu wax téere la. Mm-hmm. ndax anti day nag. Mm-hmm. boo demee ba këram xam nga nit boo gis muy dem te xamoo ko da nga koy wax eh. dëgg la wala nga ne ko sista wala may bro. waa anti day ku yëgg këram. billaahi anti day géey nga koy wooy. test madam wallaay wallaay wallaay naa joxe ñam. wallaay yaatu na. tabe na laa biir na yowee na gën na nag ci réew mi. saa yu samedi jotee. ñu dem ñàkk a dem palaatu suppu kaañe baa ci kaw table. wallaay wallaay wallaay ku moom lii mu ne xar suma doom yi. xadi ña nga waagaan ay waay ñoo bot. kon bu ko defee rek ñu dem euh, dem ak short break te desiwaat. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam bu yeewoo samar ayoo nene tuuti ayoo ay sama nene loo di jooy ayoo. sama doom ji daawul nangoo lekk lenn loo ko jox mu ne doy waaye bi ma jëndee jàlloon seral ak bii ba mu ko ñemee ba tey kër gi kenn amul jàmm mi ngi lekk bu suur di naan ba man te it da koy sawarloo ba noppi nag képp koo xam ne xale nga bu ëpp juróom benn weer rek mun nga lekk jàlloon seral ak bii ndax dafa piiree te neex lool xale yépp ko bëgg waaye meew mu saf sàpp ak suukar mag mën na ko lekk xale itam mën na ko lekk te xale bu koy lekk da ngay am doole ba noppi da ngay sawar te it daf lay may wér gu yaram xoolal ma xale bi rek day lekk suba ak ngoon loolu moo tax ñëpp a ko kon képp ku bëgg cérélac bu baax te neex lool bëgg sa doom di lekk saa su ne demal nga jënd jaaloon cérélac bii xool leen ko fépp la am bitik ak marché fépp foo dugg rek am na jaaloon céréal bii di cérélac bi gën ci cérélac yi bëgg tegal nañ leen ci bénégar bu doy waar xoolal ma jongoma ji bi mu demee marché taamuwul benn bénégar bu dul buuri bénégar yi maa la ko wax buur bénégar a ngi nii yegg si ci réew mi képp koo xam ne da ngay togg bëgg sa cin saf sa cin neex sa cin am gu li ngay togg nit man ko lekk jëndal buur Bénégar bi ràññee ko bu baax a baax xool ko bu baax ku ko ñam xam ne neex fi ngay dem maa la koy wax boo jógee Westfield mel ni koy dem Serekunda bitig bi jàkkaarloog OJ Johnson bi opposite church bi ci highway Serekunda yow moom sa ginaar saf na xoolal waa ji nee na dafa bëgg a drive te mënul moto waaye ma wax la fi ngay dem ñu jàngal la moto ba nga man dawal fële ca Frontstar Housing Real Estate ñu ngi tabax ay kër di jaay ay kër yu mucc ay waaye yemuñu foofu de ñu ngi am driving school bu baax boo xam ni boo fa duggee di nga mën a jàng oto ci diir bu gàtt nga man moto driving school bi boo fa jàngee ba génnee fa oto boo jëlati di nga ko dawal te doo ma sa def sox ndax li ngay dawal da nga koy tekki yoon moo tax every Saturday yow mi fay jàngee moto dinañ la def defal classes jàngal la trafic loo lépp loo xam ne loi la ci kaw tali bi nga mën ko xam bu ñu la jàngalee ba nga mokkal dinañ la yóbbu cekin jox la laysin jox la certificat maanaam loolu mooy wane ne yow qualified driver nga ci teewaayu police pour nga bëgg a jàng moto bokk ci ñi dàq dawal ci àdduna bi dawal fële ci France taxaw si real estate nga woote ci 1218 firi la ci bépp GSM boo mën a use boo bëggee maid service maanaam ku lay liggéeyal ci sa biir kër wala sax ngay liggéey bëgg ku la xaar ci kër gi téyel la say doom France taxaw si rek ñoo la ko mën a utal moo xam góor la wala jigéen wooteel ci 1218 bépp GSM boo am rek mun nga cee kool ndax kool bi free la am nañu promotion bu spécial kon daw leen foofu ca France Star Housing ndax ngeen bokk ci promotion bi cay France Star Housing indi ngeen lu nekk waaye bii moom noo driving school bii moom lañ doon xaar. sin ma ngay waaw kay yéen a gis li nga xamante ne mooy break boobu fi jaar may wax réew mi xarit yeeg am di jàmm yi soppe yore business yu mag yi ci réew mi mhm. dugal leen seen loxo di sponsor programme yi nga xamante ne àdduna koy seetaan mhm. yéen a ngi yore produit yu baax mhm. yore marchandise yoo xam ne ñëpp ko war a xam waaye boo sar si boutique ba mu fees te defuloo advertisement nit ñi duñu xam boutique bi day dem ba mu yàgg bagage di yàqu ne expiré ngay tuur mhm. dugg leen ci waagaan show kon nag buur beneegar a ngi noonu a <laughs> caral ak bi nga xam ne moom mooy jaaloon kontaan nañ ci yéen bu baax a baax nii rek la waagaan show lañ wax waaw ñëw leen rek ñu ànd ak yéen mu neex kon jarga kontaan nañ ci yéen di nuyu ñëpp di wax ne ay ca daw ca place ba rek mu neex. mu ngi noonu waaw Cheikh Al Islam borom advance bi eh, nuyu nañ la <laughs> mooy <laughs> dem seeti ki nga xamante ne mooy maire Bos. ñu dem mhm. déglu maire tey lan la bëgg a wax. sin ma ngay nelaw. bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar yi jiin. taacu leen ma maire Bos mu dugg si. maire Bos <laughs> ay nu ko neex lay doxee. mère Boss dikkal. nu ko lay solo. dikkal. nu ko neex lay duggee. dikkal. nu ko lay defee. ñawal. nu ko lay solo. ñawal. nu ko lay doxee. dikkal. nu ko lay ñëwee. dikkal. nu ko lay ca dikkal. nu ko lay dikkee. ñëwal nu eh, ko neex lay solo eh, seen tàccu yi àndu nu ah, ko neex lay solo nu eh, ko neex lay solo dikkal nu ko neex lay dikkee waa mère bés xam nga dafa am ñoo xam ne rek sista di soor ah. seen tàccu yi àndut waaye ku nii laa maye ma ah. jógee si tabaski oyofal ko wax nga dëgg waaw soo jógee si tabaski da nga ko oyofal ñu xam ne si tabaski nga jógee waa yal nañ ko fekkee déwén yal nañ fekkee at yu bari waaw da fogoon naa ne suma xarit ngeen waaye des na ah. kenn mayu ma si dara yaa fa gisuma si dara ñëwul suma kër sa yàq ñëwul suma kër waaw man sama jox lu ba waaye doo ma jox ay butit ko ne la anti hadi mooma yónni butit la ma jox man luñ tooga laa la indi lu ma la butit lu xaarar lañ ma jox kon du yow kon du yow eh, eh, déglu ma ah, yéele man la yéele man la dama bëgg a tey ngeen jottali ma déglu ko dama wax kilifa la suma wa da ngeen ma jottali maire boss mu ne waaw attention waaw mu ne na ñëpp joxe noppay te bàyyi xel li mu bëgg a wax man ma ne lu ma bëgg a wax nii. mu ne li nga xam ne moom la bëgg a ñëw wax nii. Hmm. man ma ne dëkk bi baax na léegi. mu ne moom mu ne. ah réew mi ne mi doxee baax na. Ah. da dafa amoon lu ma naxari loo xam naa ko wax tey. mu ne amoon na lu ko naxari lool waaye tey lim bëgg a wax. mooy li ko naqari woon yàgg naa fee wax nag ñu ko teg ñu see teg seen boot mu ne yàgg naa wax ñëpp di ci teg boot ci li muy wax waaye tey su ma waxee mu ne waaye bu tey bu waxee ñu xam ne dinañ si tegati seen boot mu ne waaye dinañ li muy wax dinañ ñëpp dinañ ci teg boot xam naa suma nooni nag mu ne xam ay noonam su ma waxee ñu ne waxu dëgg mu ne bu waxee ñu ne waxu dëgg wala dafa sos wala dafa sos wala dañoo jékki-jékki rek wala dañoo jékki-jékki rek seen boot teg si seen boot tàccu leen loolu mu ne ngeen tàccu loolu ngeen mu ne ay xorol ni nekk si boo xam ne suñ waxee sa doo leen tàccu ngeen mel ni e ay xoro mel ni e ay seeti tubaab mel ni e ay seeti tubaab yen ay soxor la yéen ay iñaan la soxor la waa joxuma leen salibo moo tax ngeen bañ a tàccu waa dinaa leen jox salibo beneen ba sa toppa mu ne beneen ba ca toppa ma am lu ma metti mu ne mu am lu ko metti ma doon ko dunda mu ne mu ko doon dund moom mi yéen si nekk si réew mi mu ne ak doomi réew mi ne ci réew mi waa ñu ñëpp ne wa alhamdulilah mu ne waaye na ñëpp dàqano wa alhamdulilah li ma wax nii mu ne li bëgg a wax nii ñun ñëpp ñoo ko dund ay doy na waaye li ma bëgg a wax nii mu ne li bëgg a wax nii ñun ñëpp a ko dunda ñàkk moto gi ñàkk moto gi ci réew mi ci dëkk bi ci réew mi soo wàccaan liggéey. mu ne boo wàccee liggéey foo. bu dee foo nga wàcce wala five. mu ne bu dee foo wala five. in nga àgg sa dëgg la tàccu leen loolu. foo ko yëgee ko wax. te boo eegee sa kër. ne te boo eegee sa kër. da nga naan paracetamol. da nga naan paracetamol mbaa sa doomu bës la. sa doomu bës la. mbaa nga tëdd nelaw thirty minutes. wala nga tëdd doo mun a jóg. doo mun a jóg lan moo ko waral. lu ko waral taxaw ak moto. wallaahi ñàkk a moto. mu ne ñàkk moto gi ci réew mi taxaw ba soona. taxaw ba soona toog ba soona. ba soona wéeru ba ba soona jinko ba soona. ñu may la liif. ñu may la nga daw tuuti. nga daw tuuti ñu wàccee la. nga xosluwaat nga xosluwaat. ñu amaat beneen oto. ba nga egg sa kër te li ma wax mooy. te li muy bëgg a wax lii moo ne. yërmande amatul ci réew mi yërmande amatul ci réew mi. taxaw bunti wees fii da ngaa taxaw bunti taxaw di xaar moto. moto. taxi driver yi ne duñ daw lu du town trip. waaw taxi daw lu du town trip. van van driver yi xam nañ fi nit ñi jëm waaye duñ fa eega. mu van driver yi xam nañ fi nit ñi war a dem waaye duñ fa eega. borom private yi. mu ne borom private yi. benn nit nga eb sa moto. benn nit nga eb ci sa kër moto jigéen bu rafet. wala nga xool jigéen bu rafet.

nga xool jigéen bu rafet. nga xool jigéen bu rafet. yóbbaale ko yóbbaale ko. enewuloo ko jàmm mu ne enewuloo ko jàmm. du yërmande ta. du yërmande ta. ba bon rek. bon rek ak beneen ba ca toppa. am na beneen ba ca toppa. yow sa oto bi. mu ne yow sa oto bi. ñeneenti place la def. ñeneenti place la def wala juróom. wala juróom wala juróom ñaar wala juróom ñaar. yow kenn a si nekk. yow kenn a si nekk nga rooma nit ñi. nga rooma nit ñi. bàyyi leen si ñu taxaw. bàyyi leen fa ñu taxaw nanguloo naa yóbbaale. nanguwoo leen na yóbbu. soo leen bëgg a xool sax. soo leen bëgg a xool sax. ñu jël seen bët yi xool géej. ñu jël bët ya xool géej nii la nit ñi nekkee fekkee nii lañ taxawee nii la ñoo xoolee mu ne koo xam ne sa deret nga xalaat bi nga amutee moto nga xalaat ba nga amutee moto jóg di xoslu moto jóg di xoslu moto war ngaa xalaat ñi taxaw amuñ moto war ngaa xalaat yow mi toog ci oto bi di dawal ñi tax parce que ñi taxaw di ut a leen a yóbbu te oto leen di yóbbu oto leen mën a indi kon nañ leen di bàyyi xel nañ leen bàyyi xel yéen taxi driver yi nag bu ngeen yaakaaree bu ngeen yaakaaree ñëpp am na njëgi taw ñëpp am na njëgi taw ndax ngeen seen bopp ndax njëgi taw waaw mais xanaa dañ la jox moto eh, man ah moom lii la kay man maa gën a ñàkk moto di léegi yow kat li nga war li ma wax maa ko dunda di ah. ay hay hay hay maa dunda de hay li ma wax ni maa ko dunda moo ma di ko wa di mhm. xam ga ko loolu rafetul rafetul kay ah. fan yi dégg naa mu ne fan yi dégg naa ñu ne ñu ne oto yu ndaw yooyu tuuti yooyu naka lañ tudda oto yu ndaw yu tuuti rayda yi ah, di em nii ah cama naka mbaam waaw tuktok la ñu ne ñu ngi leen bëgg cek cek waaw bu fi bëgg a génne hmm. te loolu ba woon na si dëkk bi maa ko wax a génne xaw de su fekkee ne affaire yi quoi kayit la ak loi nañ la organise ñu jox leen kayit because da ngaa toog doo am moto hmm. kenn du la yóbbu càq-càq yi di rong di yóbbu rek te ñoom dañ gaaw lépp loo xam ne dafa ay yóbbal trafic bi ak transport bi nañ si taxaw man li la am pour wax xam naa ne nag ku mere yaa xam léegi yow lu ma tëjee may may ma may ma may ma may ma may ma ma may ma may ma may lu ma tëjee may dama gis démba sen boss bi dimbale ma si daala bi dama la ba si daal seen boss bi Mouhamed Dia. waaw taxawa président ñu ñu tiim fanweeri moto ñetta. dañ ko bëgg a tasaare si dëkk bi ah, yow liy tax ngay wax. kon ma dina laaj xanaa may moto. looloo tax suba xol bi seeda. waaw kay. ay eh, waa dëkk bi la ñàkk moto bi si dëkk bi. waaw métti na. ma gis Mouhamed Dia taxaw seen waajur baax jooju. waaw Mouhamed Dia. baax na de dafa dimbale dëkk bi de mu lëkkaloo ama niñ lëkkaloo nag moo président bi waaw na loxo maga sax moo président bi moom xamal loxo maga sax ah loxo ma nga ca biir 100 pour cent waaw kay léegi nag tatitiri moto yooyu buñ ko tasaaree si dëkk bi area komba gi kenn dootu taxaw di xaar moto kon nag na ngeen xaar yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg nit ñi di nekk si coono mm. pour ngeen mun a liggéey seen kaw mm. yàlla bindu nit ñi pour toroxal leen mm. man meer bés maa ko wax kum nee kum naxari kum nee kum naxari nga yey sa karawi boppa waa maa ngi dem hey xanaa def la naxari man dara naqarewu ku mu neex ku mu naqare ku ma ne man dara naqarewu ma. mer déedéet. de. bul da dama laa may su suma mes bi ay. nelaw bu yeewoo xalam yi jiin bu waaw kay mère Boss toj nga fi. ah. waaye yéen mère moom. loo wax ne bàyyiwut ko xel ko. non non li mu wax dafa am solo ndeysaan nee na moom. yërmande la am ci bu ñëwee Westfield fekk nit ñi wàcc ñëpp taxaw line di xaar oto billaay xanaa boo si dinañ tasaaroo ci réew mi ba pare man borom wax na leen ko lu ne yàkk na leen ko waaw mu ne duñ hmm? mu teen gi sànni ko jël kanamam gi sànni ko Dakar <laughs> te ku ci panne kaay leen puus ma puus ma ñàkk a jom mais yéen a du ci benn koñ duuta waaw mère Wes mi li mbaa jàmm la ah na lu wax dëgg rek hmm? moo tax mu ne boo si ñëw na Ah, amatul ñaan liif mu ne leen mën a xare liggéey dañoo wàcc am na solo mère Beuss lu mu wax rek boo ci xalaatee di nga xam ne gis naa ne am na lu am solo la hmm. euh, kon nag euh, jàpp naa ne boos yooyu nga xam ne euh, président bi wàccee na ko fi ànd ak nga xam ne moom mooy ndawi réew mi yëpp ñu jàpp ci ku ci mel ni ki nga xam ne mooy Mohamed Dia hmm. Hmm. taxawaay bi mu ci am ak ñeneen ñeneen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla taxaw nañ ci liggéey nga xam ne mooy affaire bi ba mu mën a nekk ñetti téeméer la wala naata laati. Eh, tri tati tri tati tri. Mm. voilà tati tri yoo xam ne fanweeri boos ak ñett ak ñett yoo xam ne dafa war a daw ci biir réew mi. ah loolu am na solo de léegi tey moom affaire transport bi moom gën a yaatu affaire transport bi tam dina gën a yomb ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, soxla dem ak dikk. di nuyu bu baax a baax Omar di ko ziar di ko ñaanal Omar caat lañ koy wax. Euh, mu àndoon ak chat promotion ci làmb ji ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di lu ci bright sama xarit bi last week seetaan nañu. Hmm. mu ne ma ba pare nga ni ma dee waxee kak nga ma waxal. ndeysaan ni ma ko defee ba seetaan kor ka nelaw. yow tam noon nga ñëwee si affaire bi nga leeral ko. Ah. suma mbokk yi fu nekk di ma ko. di ne lu ci loo wax <laughs> ma ne ko mu ngi de. <laughs> lu ci kontaan naa ci yow yaay sama xarit fii laa la def. ndeysaan waaw bii moom xam naa ne moom mooy loolu di nga ko seetaan ayca am na solo maa ngi koy jaajëfal baax a baax loolu am na solo mu ngi aji Oumy Touré ko mm-hmm. ca Latrikunda séri pa Touré awa buri këram kooku mm-hmm. VIP la du VIG VIP la bég ci moom di nuyu caat aja roxi bu bëree bari di nuyu taaw ba ca kër ga nuyu seen bàjjen ca Banjul mm-hmm. tubaab di am mbégte ci ñoom nuyu xandaw sàll traffic light mhm. suñu yaay booy anti adu booy faal mu ngi fii ci Banjul uh, ci Bakaw waaye du ma fàtte aji far saw saw pula jéeri borom faaraato mhm. alkaali boobu nga xamante ndeysaan dafa baax yéwén tabe gën maa ngi lay nuyu lu bëree bari di am mbégte ci yow lu bëri nuyu mhm. aji roxi Senghor uh, foofa ca Banjul Nding di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñu bàyyi xel waaye maire bës Banjul Nding kooku di mama daba jeng sàll maire Banjul jeeg sàll booy deg sàll coroma jigéen borom borom kooku mooy maire bës mooy maire bës kay uh, maire Banjul suñu yaay suñu xarit waaw ginnaaw yàlla tey euh, bi ñuy wax programme bi boobu ñun xalaatuñ ko woon ay at yu bari la ci ginnaaw kon jàpp leen ne moom mooy waagaan show mhm. defe ne dëgg la kontaan nañ ci yow bu ko defee rek lu ñu def rek mooy dañu dem seeti président Adama Barrow te del si te del si waaw sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin bu ko defee rek ñu tàccu ñaanal jàmm salaam jiitu réew mi ko koy góoru Sadio Mballo barke Rasulilaay kookooy ki nga xamante ne moom la yàlla teg ci bi nga xamante ne moo njiite Gambia yëpp na ko nit ñi dégg président Adama Barrow mbaalox li ñu tàcc ko mu daagu nank ñëw mbaalox li loxoy loxoy loxoy loxoy loxoy loxoy loxoy loxoy loxoy loxoy loxoy loxoy barki rasulullaay bi mu réew Barrow ko moom waaw kay réew mi Barrow mooy ki ko moom waaw mi réew xadi ki ko moom réew mi yooyu yàq doon am ko mel ni Barrow wallaay dëgg la yokkute am na naataange am na. dëgg la tali yi leer na. Mhm. lamp yi leer na. dëgg la oto yi bari na macha allah. dëgg la li mu na nag moom lañ ko mën a waxal nag. Mhm. ñu ne biim réew. maro ko moom gasa ba gaddat réew mi baara mooy kii ko moom gasa ba gaddat eh mim réew baaro ko moom gasa ba gaddat réew mi baara mooy kii ko moom gasa ba gaddat eh mim réew baaro ko moom gasa ba gaddat réew mi baara mooy kii ko moom ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii eh ñu ko bëgg ñoo ngi nii prési ñu ko bëgg ñoo ngi nii eh ñu ko bëgg ñoo ngi nii bilaay ñu ko bëgg ñoo ngi nii. ñu ko bëgg. ñoo waa man maa la bëgg. pere. ay bëggante la. pere maa ngi lay nuyu ay bëggante di la fay. ziyaare bu baax a baax. di la delloo ziyaare. di la ndokkeel li waaye ari gari koor gi ñu jógee. day tax ah, nank nank nank nank bul ma gaañ. waaye ndokkeel gi du jeex. dëgg la. di la ndokkeel ci lu rëy li nga def. yow taxoon nekk gàddu ko nga def ci réew mi. Mm-hmm. yokkute réew mi la. dëgg la. nga askan wi jafe-jafe gu bëree bëri. Mm-hmm. ndax dama ko dikk bi. yow mu ton de. Mm-hmm. nga yëg ko nga ñàkk koo yëg mësuta yoon ah. <laughs> waa jàpp nga lool ci dem ak dikk bi mm-hmm. Mm-hmm. yëg nañ yoon yu bari yi nga xam ne yànk ngi ko sumb ci réew mi mm-hmm. ngir rek yaxan la dem ko dikk bi yomb ba nga ca pare mun nga caa yem nga yëkkati wàllu egg ci fan fanweeri boos ak ñett nga jébbal ko réew mi loolu la def ne nag dama bëgg bu kenn sonati ci ran ak xëccoo ay oto maa lox fan yi la rek gis naa jéego yi am solo yi nga def dugg nga ci biir dëkk bi fépp foo xam ne yoon yaa ngi ko fay samp baro taxaw nga fa seet la liggéey bi toll <laughs> ñi gis ne liggéey mm-hmm. dal nga seen ko wal ne ne xaalis a ngi tegu lépp a ngi tegu yow liggéey bi waroon naa passé fii mm-hmm. te loolu nag bëgg sa liggéey dem ca kanam moo ko waral mm-hmm. yaxamtewul lenn abaraka yaxamtewul dara albulo albulo ah, albulo albulo yaxamtewul dara barke rasulullah réew mi kontaan nañ ci yow réew mi bëgg nañ ci yow yoon yi leer na lamp yi leer na oto yi bëri na bu kenn taxawati ci kaw tali li la président wax jërëjëf fellow Gambians. dégg ko de. wu ne doomu réew mi men and women. góor ak jigéen. Mhm. muslim ak non muslim. mu ne ñi nga xamante ne muslim lañ ak ñi ne ci réew mi. ndeysaan ñu muslim. moo bëgg réew mi. I thank you everybody. mu ne mu ngi jaajëfal ñëpp. waaw loxo yi loxo yi na ko loxo yi macha allah. di nuyu mboolem koo xam ne rek jàpp nga ci liggéey bi. mu mm-hmm. ngi nuyu ndawi réew mi ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéeyam. ndax boo xooli Gambie démb ak Gambie tey. mu ne boo bàyyi xel Gambie demb fa mu nekkoon a ak Gambie tey fi mu ne. Mm. nga xam ne wuute am na. nga xam ne wuute bu rëy am na. li ko waral nag. mu ne li waral wuute ba. mooy yéen réew doomi réew mi. mu ne yuut si di doomi réew mi. ndax réew kenn mënu ko yóbbu rek. ko yóbbu. mbooloo mooy doole. mbooloo mooy doole maalox lii te mbooloo moomu. te mooy yéen. maalox lii kon lépp lu ñuy def. ne kon lépp lu ñuy def. yéen lañ ciy seet. yéen lañ seet. su ngeen bégee. su ngeen bégee. xam leen ne bég naa. moom na waaye bu ngeen bégul. waaye bu ngeen bégul man mënu maa bég de. a bég ndax yéen ay man. ndax yéen ay moom mooy yéen ndax bi ma laajee réew mi. te ba mu laajee réew ko teg suma loxo. ndaw ñi ko teg ci yaakaar. ak liggéey. ak liggéey kon loolu du ma ko caaxaane. loolu moom du ko caaxaane. moo tax bi demee ba gis ne. macha allah janaata janaata loxoy loxoy loxoy dem bi ak ah. dikk bi sooxe na. mu ne dem na ba gis ne dem ak dikk bi dafa sooxe ci réew ndax boo xoolee 1994. mu ne boo xoolee 1994. du fi yaaya jàmm di ñëw. du fi yaaya jàmm nekkoon waaw waaw wax ko de. ak tey uute na. mu ne ak tey lool. booba one million bi li ci tegu bëriwut. mu ne la tegu woon tey ëpp nañ one million people. dem nañ ba two million people. dem two million mun naa am sax ëpp na ko. mun naa am sax ëpp na ko kon loolu. mun na kon loolu foog am lu am lu xew. foog am lu xew. dëkkin bi dina gën a xat. dëkk bi gën a xat yoon bi dina gën a xat. yoon bi gën a xat. loolu yëpp sóoraale nañ ko. ndax boo xoolee yaay jàmme. mu ne boo xoolee yaay jàmme. highway Birkama bii highway Birkama bii benn yoon bu ndaw la fa fekkoon tali boo xam ne xoori paañ la bari moo ko fa barom euh, yaa euh, jawara moo ko fa defoon jawara ko fa defoon te booba daawul xat te boobu waan xat mu dem ba mu yàgg mu dem ba mu yàgg gis na xat na mu gis na xat mu def ko ñaari yoon waaye tey waaye tey suba angoon mu ne suba angoon guddi ak bëccëg ak bëccëg oto yaa ngi sëslante oto yaa ngi sëslante mu ngi am embouteillage mu ne ba léegi oto yi ñu ngi am trafic jam loolu nag li ko waral mu ne loolu li ko waral mooy rew mi moo màgg réew mi màgg xale yi ñoo màgg dëkk bi moo naat dëkk bi naat yokku yokku kon loolu li ko waral loolu li ko waral mooy gis nañ ne ñu ngi yokku moo tax man suma liggéey moo tax moom liggéeyam li ci ëpp li ci ëpp dina bàyyi xel yoon dina bàyyi xel yoon ak dëkkin ak dëkkin ndax loolu mooy liy indi réew mi jàmm. ndax loolu mooy indi koom-koom ci réew mi. ndax koom réew soo bëggee mu am koom-koom. boo bëggee am koom-koom. ku bëgg a dem da ngay dem. ku bëgg a dem dem. ku bëgg a dikk dikk. ku bëgg a dikk dikk. booy xëy. booy xëy boo waree xëy étakulo. boo waree xëy nga àgg ten akulo. nga àgg ten. two hours boobu. two hours boobu loosis bu rëy la ci réew mi. ñàkk ñàkk bu rëy la ci réew mi. la ñuy bañ. loolu lay bañ. moo tax ñuy am ay yoon. moo tax ñuy ut ay yoon réew balaa balaa balaa développe dafay am yoon. moo tax suma liggéey yu bëri yëpp. moo tax liggéeyam yu bëri yëpp. gis ngeen coste route. gis nañ ngeen highway bi. gis ngeen highway table. gis ngeen ma liggéey ci dex ak yoon yi ma a liggéey. yi ak yi ma yi ma yi ma ak eh, yi ma ubbi fan lépp li ko waral. loolu lépp li ko waral dama bëgg réew mi yaatu. dafa bëgg rew mi yaatu dama bëgg réew mi moo tax tey nag bi prési ko ko am loo di wax bi prési saay bi prési ko ko am loo di wax bi prési saay bi prési ko ko am loo di wax bi prési saay bi prési ko ko am loo di wax bi prési saay bi prési ko ko am loo di wax bi prési saay bi prési ko ko am loo di wax bilaay ñoo la bëgg jërëjëf subaan ñoo la bëgg jërëjëf bëgg bay foos la waay ñoo la bëgg jërëjëf jërëjëf maa la bëgg man mii jërëjëf may wax ne. mu ne mi ngi wax ne. suma taxawaayu tey bii mu ne teyam bii. gannaaw bu ma gërëmee ndawi réew mi ne ginnaaw bi mu gërëmee réew mi. gërëm suma gofamen. gërëm ñi nekk ci ginnaawam. di gofmenam maa ngi gërëm. mu ne mu ngi gërëm. Hama Mohamed Dia. mu ngi gërëm Mohamed Dia borom kiw groupe borom njiitu kiw groupe. Mhm. ndax liggéey bii. ndax liggéey bii. jàpp na ci mun na jàpp na ci gannaaw yàlla tey. mun na ginnaaw yàlla tey bu lii di am bu lii di am. taxawaayam la. te doomu réew bu baax te doomu réew mu baax. noonu nga war a def tàccul leen Mohamed Dia. waaye tàccul leen waaye waaye waaye waaye waaye waaye waaye waaye waaye waaye barki Mouhamed Baba réew mi façon nit ñu mel nii lay soxla dañu soxla réew mi façon nit ñu mel ni Mouhamed Dia lañu soxla mu ne ah. réew moo dem ndaw yaa ko développé mu ne ndaw yaa ko développé te ndaw yu mel ni Mouhamed Dia te ndaw yu mel ni Mouhamed Dia ñooy développé réew ma boo demee ci réew yu mag yi boo demee ci réew yu ndaw façon yu mel ni Mouhamed Dia façon yu mm-hmm. mel ni Mouhamed Dia dañ leen war a téye dañ leen war a téye jàppale leen mm-hmm. jàppale leen kon yàlla na ko yàlla defal jàmm mu ne yàlla na ko yàlla defal jàmm bi loolu weesoo mu ne bu loolu weesoo ah. ñu ngi indi fanweeri boos mu ne indi na fanweeri boos ak ñett yoo xam ne ak ñett yoo xam ne ci area combo bi ak area combo fii dinañ ko distribuer dinañ ko tasaare fépp foo xam ne fépp foo xam ne dama ak dikk bi jafe woon na dem bi jafe woon na mu yomb mu yomb te boo si mucc na ayib mu ne tam boo si mucc na ayib lool boo si neex na neex na bu fekkee ñu ngi fexe sax nuñ fay defee attaaya. mu eh, ne sax ñu ngi fexe sax nu ñu defee boosi am place attaaya ku dugg ci mu ne ku dugg ci boosi ñu ximal la. bu fekkee sa bopp bi day métti. mu ne bu dee da nga am bopp bu métti. dinañ la laaj ndax sa bopp ay métti dinañ la laaj ndax da nga am bopp bu métti. bu fekkee gën a attaaya la bu dee attaaya la. bu dee foos nga bëgg. bu dee foos la ñu dóor la foos. ñu dóor la foos bu dee seconde. bu dee seconde ñu dóor la seconde. ñu dóor la seconde bu dee las barade bi daf lay arrangé sax. bu dee las barade moo gën am na café Touba gi boos bi dina am café Touba. waaye ñoo kontaan ci yow ba jeex sàkk ni eh, ma seera ba fa ci ba ba ay ñoo kontaan ci yow ba jeex tàkk ni Seera Fall kontaan na woon sama baba sama baba ci yow ba jeex tàkk ni Seera Fall kontaan na woon bu ko defee emul foofu dama kontaan emul foofu ak ah, lalati ndox bu sedd dina am ci biir oto mu ne biir boos bi am na ndox mu sedd bu fekkee galaas nga bëgg mu ne bu dee galaas nga bëgg boo duggaale ak soow ci oto bi boo duggaale ak soow ñu njaral la ñu tojal la ko ay ceeb man bëgg naa la ci biir mu ne boo duggee ci biir boos bi ñu tojal la dafay am connexion. ah, ah waaw boo dugg di connecté wu. bu fekkee sa batterie dafa jeex sax. mu ne bu bi dafa oto bi rek boo duggee si charge. Ah. nga am connexion. da ngay dugg charge wala da ngay dugg mu charge ah, da ngay dugg rek muy charge. da ngay dugg rek muy charge. ngay am connexion. yooyu yëpp mu ngi ci biir boos bi. dinañ maa ko bëgg. ñu ko bëgg. ñoo ngi nii. ñu ko bëgg. ñoo ngi nii. ana ngi nii boos bi foofu. su fekkee heure añ def fa fekk. mu ne bu la añ fekkee ci boos bi. di nga lekk. di nga lekk. ba suur. ba suur bu dee suppa kañ nga bëgg. altine suppa kañ la altine suppa la. talaata ceeb benn cin la benn cin. alarba maa fee. alarba maa fee alxames. alxames bu dee ñeleng nga bëgg. bu dee wala mbaxal dina fa am ñeleng finni mbaxal. waaw ajuma. ajuma dinañ danañ danañ delluwaat mbaxal ci place mbaxal gu am diwtiir. bu am diwtiir mooy ajuma ak kànja ak njaxatu. waaw samedi. samedi sama gàttal réew mi ba la waxoon dara man ba léegi amoo oto dama sonn léegi pono bi de laa xamul fu ma koy jëlee pono gannaaw bi moo moo génn président sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin waaye yéen président Adama Barrow hmm. ah wàccee na mi waaw euh, li maire Bas wax la ci boos ak transport bi wax na dëgg mm-hmm. bureau yi dañuy leet liggéey mm-hmm. xale yi leet school mm-hmm. ah ñiy jaayi leet ah président Adama Barrow waay waay waay moo tax mu ne moom boo gisee mu focus ci ay tali ngir nit ñi mën a dem dikk mu yomb mu ne réew du mun a avancer maanaam du advance mukk te dem ak dikk bi yombut ndax loolu dafay bloqué dafay bloqué li nga xam ne moom mooy économie bi ndax su fekkee ne dem dikk dem ak ñëw amut kenn du mën a def dara te su def dara amut réew mi du mën a jóg fi mu ne mhm. te su fekkee réew mi jógut fi mu ne su boobaa nag maanaam li nga xam ne mooy yokkute du yomb mhm. loolu moo tax réew mi maanaam mu taxaw ci ay tali mhm. taxaw ci ay transport ni ñi mën a dem mën a dikk mën a xëy taayam mën a wàcc taayam nga gis ni eh, nit ñaa ngee mën a doxi seen soxla yi su boobaa dëkk bi dafay muuf te loolu lu am solo la boobaa développé mm. ni dëkk la mm. Mm. ndax yoon boo gis mu baax rek jaaykat yi bari fa dëkk baa ngi développé wallaay wallaay wallaay waaye ndeysaan bu ci boole ne ko digoon na ma ko de. <laughs> mu ne hmm? daf ko cof de waxu déggu ma la. jërëjëf. loolu am na solo. nga ne ma. xam nga moom ndeysaan yàlla def mu baax rek. moom yàlla na sa jàmm yàgg salaam. Hmm. Hmm. moom lu mu def fii lu firndeeg baax. lu ko ah, nuru baax la. Hmm. dafa dafa baax salaam ci wax Baro réew ko moom rek. Hmm, non moom dafa baax. Hmm, nit baax la. dafa dëkk baax dafa baax dëkk mbaaxeen. ànd ak Tambacounda ah, waaw ànd ak baxaw di baxaxaxi ba mbaaxeen toog yàlla na sa jàmm. Baro kay duwe ko waagaan. du li ma wax ngi nii. fi métti ci yaramam. <laughs> yow tagg gi fii. ay tey nag Mballo ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax am na solo dafa mel ni li waxtu bi ma waaw lii la waxtu bi mayoon tey. ñu nuyu Abouba sama xarit la ma nga Capital FM ñu ngi koy ziar bu baax Abouba. Euh, borom Latrikunda borom ganaar yu neex yi. Mm-hmm. abu sunu xarit la abu yàlla na sa jàmm yàgg. Mm-hmm. di nuyu waa Latrikunda marché bu ma limee juum. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi marché kunda jiital ci nag sama nijaay Alhaji Badou faal Fall mhm. jaga yaaram ca marché kunda ak ñoom Papa Ndiaye sama jarbaat yooyu ah, ñoom mari Se Marie Marie Marie Sow ak ñoom kii ah, eh, eh, Seck eh, Mbay Seck ñoom ñëpp ah su ñëng ñoom ñëpp kontaan naa ci ñoom ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax ak salaam ma nga xam ne moo ne ca biir marché ba jaay yàpp mbaaru maa naa nuyu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy police yi nekk si si bi <coughs> KMC police yi ñu ngi ngi leen a nuyu. ayca xam nga soo nuyoo salaam nuyu waa Latrikunda man dama cee war a bokk. Mhm. Mhm. ndax man samay doom foofu lañ juddoo. Mhm. muy Xaadim ak Papa Laay Ngom. seen bàyyi doon Taala Ngom. waaw waaw. yoroon fa place bu mag ca marché àdduna yëpp mhm. xam ko ñoom mhm. Mamadou Diallo mhm. ñoom Khadim Ngom ñoom Udoot ñoom Lewo ñoom fa lañ jaar waaw sama njaboot lañu waaw sama njaboot lañu maa ngi leen di nuyu di nuyu képp kuy jaay ci marché bi ngay góor di jigéen dëgg la du ma leen fàtte macha allah mel na ni tey lii mooy li jaar ci programme bi am na ci solo waaye balaa ñu dem wax ci Ami Ndiaye Moussor tey gis nga ab cocoté la ma defara ah kay mais princesse Thiakou Bantan maa ngi lay nuyu nag dañu faral di ko solal ñii dugg ci pilé ni Ami Ndiaye Moussor moo la defal lii moo ko defal lii rafet na de waaw Ami Ndiaye Moussor ko defal yónnee ma ko waaye xam nga bii tey ab as copp cotise la da këpp ko ci bopp bi bare daa ànd ak buum de gis nga buum gaa ngi nii ah. waaw daa Ami bu ñu jomal rakk sama bu ñu jomal number Ami Ndiaye ku bëgg ci lii da nga koy call 371 5996 371 5996 Mohamed Haydara Plaza mhm. Mohamed jëlal ma daal bii faxa mhm. waaw waaw daal bi xil bi moo génn si julli gi waagaan la ilaha illallah rafet na gis nga ne xili daal bi mel Mohamed li mu def nii rafet na kon la boo xalaat am na ci daal bi am na black am na blue am na gold am na silver am waaw xam nga ne lii dafa rafet. waa gis ngeen xil bi. <laughs> Mouhamed mi nekk dara Plaza moo ko defar. moo ko defar kay. moo ko jëlee Dubai indi ko. waaw ñoom. Nomba Mohamed ah, ah, moo génn moo génn tamit gis nga si li ma takk ah, nii ceen bu ma takk jaaro bu ma takk montour lam lépp li ngeen gis mu ne ci sama yaram bi ma nga jógee ci Hydra Plaza ma nuyu si Jeynaba bu baax ma ne ci boutique ba nuyu ba alaaji mm-hmm. moo nekk ci boutique ba nuyu Cheikh Tidiane Haydara ñoom ñi nga xam ne su ma yegsee mm-hmm. dañ may laaj ban kolo yere ngay sol mm-hmm. ma wax kolo bi ñu aji daal yëpp laajal ma Mohamed kañ lay indi daal yi góor yi rek waaw laa bëgg te keroog dem naa fa de mu ne ma waaye gaan moom bàyyi na ma di du ñëw Mm. maa ngi am ay piisu garaaw ma ne ko dinaa ko wax demal nag waagaan dëgg la dinaa dem ah, bi di mm-hmm. ah, mm-hmm. double three zero four nine three four double three zero four nga ci Haydara Plaza ca Serekunda beneen boutique am bi mu ngi jàkkaarloog kër honorable Halifa Sall mm-hmm. eh, Cham Creation nag borom ibootaan borom ñaari jabar yi moom nga xam ne moom ndeysaan yàlla dafa dogal mu doon sama chéri koko ndax ma nee naa maddi gi ma yore di ko lekk caam yi ko suukar lii la yàlla dogal waaw ah, loo tax def lii waaw ñëw ñëw bu rafet bi bëgg naa nga jëlee ma lii ah, faxa ndax gis nga pièce bi Cham Creation na koy jaay ci atelier am. dëgg la ak rafet. yora ci pink green red kola boo xalaat Cham a ngeeg pièce bii foofa boo demee nga dagg li nga bëgg ci pièce Cham jël dagg ga ba pare wëñ ko. maa la wax lii billaay barki yaa rasul maanaam daal boo duggee ci bi daal dootoo génn déedéet lépp loo soxla mu ngi dàll bi nga soxla pour solo ko yére bi maa ko yore musóor gi nga soxla maa ko yore ceen gi nga soxla maa ko yore poos bi nga soxla maa ko yore caam daal lépp loo loo dugg ci bitigam boo génnee gaat bi dem nomba caam di 399 4919 399 4919 seeti leen caam création caam création jër naa seeti waaye boo taan bu leen wóoreeti dara mhm. caam yor na lépp bëta lépp lii la caam création daal yàlla na fi yàgg te wér amiin yaa rabbi maa ngeen bu baax sama xarit suñu xarit sax laay wax faxa jëloon na ñaw bi jël nga ñaw bi ah damaa bëggoon rek ndeysaan mu leer ñëpp xam ndeysaan li ma sol damaa sëy sa nag bu <laughs> jongoma ba dangaa jongoma ba énervé nëb yow <laughs> ëpp na <laughs> lii waa groupe xalaat maa ngi leen a nuyu bu baax a baax a baax a baax ah, di leen ñaanal jàmm ak salaam ah kontaan naa ci yéen ah, sama jigéen sama xarit yow yow yow man Eh, caaku bantang ah maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax di la ñaanal jàmm ah yow yaay sama star man nuyul ma sama chéri koko ah kontaan naa ci yow ñang baalo mm. eh, man nag tey ki nga xam ne moo ma génnee fii mm. Keba Fall la ma nga Latrikunda jëlal ma jiin bi cotine la hundred percent cotine mm. barke Rasul laay Keba Fall ku solul jiinam baaxul xoolal lim def lay lay la hundred percent cotine ah lii jiin bi ni mu rafetee noonu la oyofee te tamit eh, noonu la baaxee mu tekki na lakos boo xam ne moom it 100 percent cotine la. Mm. ne ma rek xoolal euh, simple rek nay doon. bu ko rek taay mu tàngaay lañ nekk. ma ne ko Keba toj nga réew mi fi ni nii maa ngi ko sol waaye mel ni solu ma yére ndax oyof gi neex sama yaram bi doo yëg tàngaay te saay bu nekk bu la neexee mun nga ko sol Keba Fall nag ma nga ca buntu marché la Tikunda ba ci xawee biir kaama bi opposite buntu marché bi boo fa demee rek di nga gis new look façon euh, shop foofu ca euh, Latrikunda nga laajte Keba Fall boo fa yeggee mu jox la yu rafet yii macha allah Keba nag yaakaar naa ne xam ngeen ko ndax lépp luy dàll lépp luy sentir lépp luy yëre boo fa eggee dina la ko jox muy Keba Fall mi nga xamante ni jamono ji ku ko xamul ah gisuma la mbaaw ndax wax dëgg yàlla. la baax rek la ah xam nga ko yow. yow kañ nga ko xam. foo nga génne. ah. <coughs> Kéba Fall nomba am 370 la 8587 bu dee foo nga génne kaay. 370. 8587 mooy nomba Keba Fall ca Latrikunda façon sob la amee lépp loo xam ne jiin la t-shirt mbaa muy kam mbaa lu mën a doon costume ak lu mën a doon rek dàll ak lépp loo xam ne da nga koy soxla rek yegga ca marché ba mu defal la ko Keba moo génn fii macha allah Keba yàlla na sa jàmm yàgg yàgg yàgg ngaa def teraanga ay ca mu ngi noonu ñang tey nag euh, loolu mooy euh, li nga xam ne moom mooy euh, programme bi di jaajafal mboolem koo xam ne yaa ngi doon bàyyi xel Cheikh Sow ñu ngi lay kontaane bu baax ak mboolem Gambia ak Sénégal li ñuy seetaan ci àdduna bi bari na waaye bu ñu limee dañuy juum waaye ñu ngi ndokkeel ñëpp di leen ñaanal jàmm di wax ne bu ñu sañoon ñëpp dinañ tudd seen tur seen sant ak fa ñu dëkk ndax loolu mooy suñu yéene waaye comme time la tax time bi dafa gàtt bu ñu sañoon rek ngeen xam ni suñu xol bii yéen a nga ca waaye nag mënumaa ñàkk tuddu Cheikh Diop ca Walfajiri waaw moom daf ñu bëgg lool. ak yaayam ju baax ji ci eh, Njawara Alkaali mm-hmm. kontaan naa ci. bu loolu weesoo ñu tëjee ko rek jaale ñi nga xam ne. yàlla def ñu génn àdduna. Mm-hmm. yaa ñaana leen yàlla xaar leen àjjana firdawsi mm-hmm. te yàlla jéggal leen i bàkkaar. barke li lépp lu ñu bàyyi ginnaaw. amiin yaa rabbi commune suñu nijaay Serigne Fall di nijaay ci waagaan ah, di bokk ak yaayam ndey ak baay génn àdduna last week mm, ah, ca. alxames bi na la waaw. ñu ñaanal ko yàlla na ko sunu borom tàbbi ci àjjana yi gën a kaw. amiin yaa rabbi bongo mi may àndal fu ma jëm yëkkati ko mu topp moom it dimanche bu ñu jogee fii def live mhm. dañoo génn ñu woo ko ne yaayam dafa feebar entré ci guddi gi yaaju noppalu ñu koy ñaanal moom bu Modou VIP yal na yàlla yërëm waajuram bu jigéen boobu te xaare ko ci àjjana fee daw si ak bépp aji jiitu amin ñang baalo kontaan nañ di wax ne noonu la ñuy jaalewaate suñu nijaay ji di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax moo ñu yar mm. këram lañ yaroo ba màgg ba toll ni ñu toll mu ngi tabakatu fii ci Essence bi ñun fii la yaroo xam nag àdduna bu baax ndax moom mhm. waaye mu yaruñu ci diina lislaam ndax ku xam baay euh, euh, euh, alaaji sëriñ Fall xam nga ne kilifa la mhm. mu jokkoon ci tarixa tiijaan doon taalibe cheikh al islam mhm. Baye Niass képp kuy kilifa foo mën a jóge boo ñuy këram ngay dal lépp lu baax rek def na ko balaa dem kon nag dañ koy sant yàlla di wax ne lépp loo xam ne bàyyi na ko muy njabootam yàlla barkeel leen waaye daal wéetal nañu ndax moo doon suñu làmp du suñu wéeruwaay bokk ak suñu yaay ndey ak baay di jaale itam keneen koo xam ne mm. kër Omar Sène la dëkk de kon seen imam ak seen alkaali mm. muy alhaaji Moustapha Sène mm-hmm. ca kër Omar Sène kilifa woon gu mag la woon yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ña ngi fi may tëjee nag mooy suma nijaay dafa dem ñëwaat mm-hmm. ndax alxames la génn àdduna àjjuma samedi sama rak bi nga xam ne moom laa bokkal ndey ak baay ñu may ko doomam bu góor di taawam Basiru am doom bu góor kon nga xam ne moom dafa dem saan wa demoon moo delsi ñu tuddee ko euh, laa xarwa <laughs> bi ex fi walidi wa walidin kama xaala asa najjilu yal na yàlla <laughs> allah sin ma nelaw bu yewoo xalam yi ji bu yewoo samar yi ji